nataal bu jëkk bi yàlla rek a fi nekkoon booba dara amagul yàlla sàkk doomu aadama indi leer mu sàkk jant ngir leeral bëccëg sàkk weer ngir leeral guddi yàlla moo baax moom mi tiim lépp